daleen ak jàmm mbokk internet yi Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen di am mbégte saa su ne defal leen vidéo mbokk internet yi euh, man ak sama kii bi présentatrice bi di di sama journaliste bu xamante ne mooy sama stagiaire ñu koy wax Jeyna l'autre jour def nañu benn émission mu neex leen trop en commentaire euh, voilà gis naa euh, quand même commentaire yi ñu mu positifé léegi euh, wax leen ay thèmes yoo xamante ne ngeen ñu aborder ko donc en commentaire proposer leen proposer leen man dinaa ko xool pourquoi pas ñu def ko benn waxtaan man ak moom échange comme d'habitude hein donc en commentaire proposer leen ko bu baax baax di remercier waa waa Génération Foot kenn ci ñoom doon na seetaan émission bi passé ba caméra que envoyé que Jeyna et tout tout donc euh, ne leen émission bi neex et tout donc euh, yéen ñi xam ne da ngeen bëgg ay sujets yoo xam ne da en commentaire mën ngeen proposer dès à présent après dañu war a def vidéo man ak moom maintenant mbokk yi vidéo bi leen rek moko waral euh, dañu jëm ci coupe du monde coupe du monde bi Sénégalais yëpp daanaka léegi xam nañ ñan la ñuy jàmmaa lool ñan lañu bokkal pour ñii di Qatar bi ko organisé Équateur ak Hollande di ko benn site bu xamante day faral di wax ki moy dañu wala keul mooy d'apprécier ay statistiques ni ñuy ni xolé jeu analyste euh, ñoom nag dañu ne Sénégal probabilité pour mu gagné affaire bi c' est zéro tout dix neuf ki jël premier mën naa leen mën naa leen wax ki jël premier c' est France la ñu wax ne moo ëpp chance pour gagné que Brésil moo stop Espagne Angleterre Belgique euh, Hollande Allemagne Argentine Portugal Croatie Danemark Uruguay Mexique Suisse euh, Pologne Iran ñooñu la Japon États-Unis Pays de Galles mooy équipe bu bu Qatar. Euh, république Corée euh, Serbie Sénégal ñii ñoo ko raw pour ñoom ñii ñëpp ñoo ëpp sànq jël Sénégal ñi ma limagul ñi ma jàppale équipe nationale yi ma lim nii yëpp site bi dafa xam ne ne ñii ñoo ëpp sax sànq pour pour Sénégal ñoo ëpp sànq Sénégal Sénégal ne la raw après Sénégal moo Sénégal mu Équateur Équateur li ñu Sénégal Australie Ghana Tunisie Maroc Canada Cameroun Arabie Saoudi euh, Costa Rica donc nous rek ay Qatar yi sax ñoo ñu ëpp sànq ñun daal suñu dafa ndaw parce que boo xoolee boo xoolee dañ ñun ñoo pays africain donc ñun amul des pays africain bu ñu raw amul benn pays africain bu ñu raw ñun ñii léegi ñun pays africain donc ñun boo comptee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pays rek la wax dañu ëpp sens kii si jël ndaare moom zéro virgule zéro zéro la am Arabie Saoudite zéro zéro zéro Canada zéro virgule un pour cent ñoom ñii ñëg zéro virgule un ñii Tunisie Maroc ñoom euh, ba si ñu Ghana zéro virgule deux la ñu am donc euh, ñoom d'après seen i kii mais li lu baax la man pour man ñëpp na yow la yow yow la yow sax baaxul te gars yi ñu ragalee xel dèjà avant poule bi da gis waaye bu ma dee ak Sénégal poule Dramon képp ku créé poule Dramon ba nga si da si raas Sénégal da nga koy ragal boo gisee Sadio Mané da ngay tiit ak Edouard rek dèjà sa xel mi dina donc sans compter suñu boy yi donc ak lu si mënti am rek xam nga suñu chance na demee nii ne ñëpp ne ñëpp dara mënuñu dara pour man loolu moo ñu ku passe loolu moo ko jox waaye ñëpp buñ ne yow la da nga favori nga kii tey nga dee donc euh, voilà benn xibaar bu xam ne noonu naa partage ak ak yéen autant wax leen seen xaar ak seen